bee nga weesu woon at ma ñu réglee moo yéesoon at ya ko jiitu yépp bii nag moom li mu andi ci at mi ngeen di réglee dafa ëpp at ya ko jiitu woon yépp mel ne mu ne at mu njëkk ma dafa doonoon téeméeri junni atum ñaareel doon téeméeri junni ak juróom fukk atum ñetteel doon million nga xam ne nga xam ne kon atum ñetteel mi moo ëpp yaari at ya ko jiitu kon dañuy seet at mu ne nam toll woon ñu génne ci asaka ju toll noona at mu njëkk ma mu doonoon téeméeri junni ñu génneel ko asaka yi téeméeri junni atum ñaareel doonoon téeméer ak juróom fukk ñu génneel ko asaka yi téeméer ak juróom fukk atum ñetteel mi nga xam ne ci lañu réglé tam doonoon benn million kon ñu génneel ko asaka yi benn million wa in zaada ndéem dolli ko woon na wa naqasa te mu wàññi ko woon mooy te mu yéesoon xob dee kon atteef bi naqsi ca manki ga xalaama ca la nga xam ne xablahoo nekk na ci ak njëkkam su fekkee ne nag at yi dañoo maasewut am na ci at moo xam ne at mi ngeen réglé moo ko gën a bari waaye nag am na ci at moo xam ne itam moo gën a bari at mii ngeen réglé mel ne mu ne at mu jëkk ba dafa toll woon ci million atum ñaareel toll woon ci ñetti million atum ñetteel mii ngeen réglé nag mu toll ci ñaari million nga xam ne atum réglé gi ñaar la mu njëkk ma benn atum ñaareel ma ñetti million kon at mi ngeen réglé moo ëpp at mu njëkk ma waaye atum ñaareel maa ko ëpp kon at mii mu indee ñaari millions yi moom dañuy génne asakay ñaari million muy asakay at moomu atum ñaareel mi nga xam ne matoon na ñett nag waaye jotoo ci woon xamoo ci woon dara dañ ko yemaleek at ma ko jiitu te yées ko mooy at moom doone woon benn million rek moom lañ yemaleek at mi nga xam ne moo ci topp te ëpp ko doon ñetti million nga xam ne asaka yi benn million rek lay génn ci at mu njëkk ma moom lay génn ci atum ñaareel moomu nga xam ne bari woon na ba toll ci ñetti million nga xam ne kon su jaxasoo nii at ma ngeen réglé am na ci at mu mu tane waaye am na ci mu ko tane at moom ñëwee moom lam toll lañ seet asakaam ñu génne ko yaa ko jiitu nag moo ci xam ne mu gën a bari ma ko jiitu du tax mu ëpp ko dañ cee génne ci asaka dañ ko yemaleeg ma ko jiitu te yées ko ndax la ko ëppee boroom capital bi jëriñoo wu ko mooy li anna zaida lam yasil li rabbihi walam yantafi bi wa in ihtakara ndeem dakkar ci na alxaamilu aji liggéey ja fakkat day ni kon mi ngi mel ne ki nit ñi asakaale bor la waxoon léegi mooy bu fekkee ne kañ jox capital ba day jaay rekk ci njëgg xew jënd tegaat muy door a wax nag bu fekkee ne day jënd di xaar ba loola néew jafe mu jaaye ko njëggu bare bare lañ ca xamoon ci àtteb asaka du soppiku ki joxe woon capital bi day bàyyi rekk kon ba mu dikk ba ñu réglé bu amoon ay ati atit bu ñu réglé rek bu génne asaka benn yoon waaye du seet na at ya toll at mu ne mu di ko génneel asaka loolu mu ne fakat day ni daa bëgg wax yu zakkihi li aamin waaxidin baada qabdihi binfisaalihi min al aamili walaw aqaama xindal aamili awaaman waaye nag am na teqale ci bu fekkee ne kooku kat dafa wutoon ak jur di ko jaay jur gu asaka war ni ki xar mbaa bëy mbaa nag mbaa gëléem kooku moom àtte bopp la amee moom lay wax naa wa xujjilat gaaweef na zakatu machiyati yi asakay juróom ga mutlaqan moo xam teew na moo xam teewut wa xusibat te limeef ko ala rabbihi mu war boroomam ka zakati fitri raqiqihi niki murum koorum jaamam ya kooku nga xam ne moom lañ jox capital bi tam ngi dakkar ci kat bu fekkee ne da caa jënd xar mbaa bëy mbaa nag mbaa gëléem te limba mat asaka kon waxtu wañ ko war a asakaale na ca dal di génne asaka ja ci jur ga joxe moo xam borom capital baa nga fa moo xam borom capital ba nekku fa te it dañ koy boole ca capital ba deesu ko limaale ca bénéfice ba mooy waxo si bat xalaa rabbi ba tey jamono yi jaam amee bu fekkoon ne moom mañ jox capital ba te caa jënd ay jaam ñu àgg ci muurum koor ñu war a génneel jaam yooyu muurum koor di daal di génne muurum koor ma fa saasa te konte ko ne ma nga bokk ca capitalu borom alal ji kenn du ko limaale ca bénéfice ba wayu zakki dana asakaal alxaamilu aji liggéey ja ribb xawoo bénéfice am ba wa in xal la ak doonte yées na nisaab li xaamin ñeel menn at in aqaama ndeem sax na bi yadihi ci loxoom xawlan at ba ak tara topp lu ko ëpp wakaanaa te ñu nekk ñoom ñaar xurray ni di yaari gor muslimay ni te ñaari julit bilaa day ni ci lu dul bor bu leen di war waxisatu rabbihi te wàllu boroomam ba bilib xixii bu àndeek bénéfice am nisaabun nisaab la mbaamu ëpp ko aw aqallu mbaa lu ko yées waxin dëxoo waaye nekk na fa moom maa loo xam ne yëkkam meluhoo dana ko mottali lee mu waxoon mooy boroom capital ba na muy génne asaka muy wax nag jëmmi kay liggéey ca capital ba nga xam ne moomu ko moom nu war a def loolu nag defe naa mat naa jàpp ndax bari na ñoo xam ne liggéeyu jaambur lañu yor maanaam dañ leen a jox rek capital ñu ci liggéey waaye moomuñu alal ja kooku day lay tax asaka war ko mooy ba muy réglé ak borom capital bi mat at waaye bu fekkee da ko koy jox ñu am juróom benn weer képp ñu réglé daal di tàggoo ku ne dem bu fekkee am na mat nisaab itam moom mi doon liggéey du tax asaka war ko ja faaw la ko asaka war mu mat at ñaareelu sart ya mooy na fekk ñoom ñaar ñëpp asaka war leen nga xam ne borom capital bi ak kam ko jox mu ci liggéey ku ca nekk gor nga julit nga te it amu ci kenn koo xam ne bor war na la buy tax asaka wàcc la nga tekki nag ne ku seet capital ba ak la borom am ci bénéfice ba mu mat nisaab mbaa boog bu fekkee matu ko it boroom am na jeneen alal joo xam ne bu ko ca boole woon mu mat nisaab dañu jàpp ne kay liggéey ca capital ba moom asakaam day topp rek alali boroom capital ba nga xam ne su fekkee ne boroom capital ba mat lewut nisaab soo boolee capital ba ak bénéfice ba du mat nisaab te it am leneen lu mu koy booleel ba mat nisaab kon moom ma ci doon liggéey moom asaka du ko war doonte sax matli woon nisaab it mbaa mu ëppali ko itam du tax asaka war ko ca kon jàppal ne buñ la joxee capital nga di ca jaay ak jënd nga seet ne bañ la ko joxee ak léegi ak bi ngeen réglé mat naat sëkk nga gis ne itam ku seet capital bi ak la nga xam ne moom la borom am ca bénéfice ba mat na nisaab mbaa matu ko waaye nag xam nga ne moom am na leneen loo xam ne su ko booleeg moom mat nisaab jàppal ne kon yow mi ñu joxoon capital bi la nga am ci bénéfice war nga caa génne asaka doonte sax matul nisaab bu léegi ba ngeen réglé nga am ñaar fukki junni mbaa fanweer bul fàtte ne ci xaalisu CFA jamono yi mu toll ñaar fukki junni mbaa fanweer matul nisaab te it biñ la dénkee alal yi jirim doo ci sañ a génne asaka te matul limub nisaab bu dee nag sa alali bopp moom te nga sañ a wéeg sa bopp kon bu la neexee loo yor rek ba at ma del si déwén sa nga def ko ñaar téeméer yu ne juróomi dërëm ndax yaa moom sa yëf waaye daal luñ la dénk moom ba àlli jirim bàyyil ba mu mat nisaab nga door caa sañ a génne asaka waxoon na ne nag buñ ko mujjee seet ci fan yi rek yàggut nisaab ci CFA mi ngi toll woon ci deux cent trente-huit mille wala yusqitu du rotal addaynu bor zakata xarsin asakay mbay wa machiyatin akuk jur baa nga ne ndox téef wa maadinin ak mbell di xilaafil xay ni ci wuuteeg kee kee mooy wurus ak xaalis ba ñuy jaay ak jëflante ca barab ba fa yusqituha moom dana ko rotal walaw mu ajjalan ak donte day bor bu ñu àppal aw mahran wala donte day ak can aw nafaqata ka sawjatin wala mu li mel ne dundub ku mel ne soxna tajam madat bopp way na maanaam bopp tajaloo na ci kawam aw day na zakatin wala muy borub asaka mbay ak asakay jur ak kan mu ñuy gase wur sa xaalis moom lu ci asaka war rek faaw boroom war caa génne asaka doonte sax daa bari bor ba nga xamee ne su fayee ay borom du matal mbaa ca la yeme dutee asaka war ko ca mel ne soo bayoon li nga bay mat nisaab te la nga amee ci bor ëpp mbay ma itam te dee nga génne asaka ja joxe soo yoroon jur goo xam ne asaka war na ca nga amee bor yoo xam ne moo ëpp jur ga itam mbaa ñu tolloo du tee asaka war la bu doon kan mu ñu gase wur sa xaalis it noonu la mu des nag wur sa xaalis woo xam ne mooy bi ñuy jaay ak jëndante ci barab yi ak dëkk yi nga amee ci nag bor am itam loyor loo xam ne mat na nisaab kon dañuy seet su fekkee ne soo fayee bor ya da ngay jeexal asaka wàcc na la su fekkee ne it doo jeexal waaye lay des du mat nisaab ba tey asaka wàcc la doonte sax bor ba nga war a fay délai bi ñëwagut du tee ñu seet ko su fekkee ne tolloo naag la nga yor ci wurus mbaa xaalis mbaa boog boo ci fayee bor ba la des du mat nisaab asaka wàcc la bu doon sax can goo ameel koo takkoon ngaa takkoon soxna ameel ko can yore nag wurus ak xaalis woo xam ne mat na nisaab mooy bi ñu seetee ne boo fayee alali sëy ja doo dese dara mbaa la ngay dese du mat nisaab ba tey asaka wàcc la mbaa sax koo xam ne yaa ko war a dundal ci yoon moo xam sa soxnaa wala sa baay wala sa doom boo ci gàddoo lu diis loo xam ne loo war a fay la buñ ko seetee nga yor na wur sa xaalis woo xam ne asaka war na ca waaye boo ci fayee rek dundub soxna sa mbaa dundub sa doom mbaa dundub sa baay day jeex mbaa lay des du mat nisaab ba tey asaka wàcc la mbaa sax nga amee woon borub asaka ni ki am nga lim boo xam ne li ci wur sa xaalis asaka war na ci waaye weesu nga yetti at yoo xam ne bu ci nekk génnewu asaka te fekkan na nga waroon na génne asaka kon bor la ci saw loos te bu dee jamono yi yoon di dox àttekat ba mën naa dal ci sa kaw ci doole kon dañu jàpp ne lii nga yor te asaka war ci ci at mii da nga ciy fay bori asaka yi at ya jiitu bu jeexee mbaa la des matul nisaab kon asaka du la war laa kafaara tin du caageenu borub kafaara wahadiyin ak borub addiyu su fekkee dafa giñoon nag war a fay alamaanu ngiñ wala mu defoon li ñuy wax zihaar wala mu dogoon ci weeru koor te tey ko yooyu daana am alamaan wala mu defoon ci aj mbaa xumare loo xam ne addiyu war na ko muy bor bu gàllu ci aw loosam yooyu moom nee nañu du tee bu yoree lu asaka war ci wurs mbaa xaalis mu war caa génne asaka ndax dañuy jàpp ne lu mel noonu da cee ànd ak sagoom rek la cay doxee li ci ëpp àttekat du ko taxawal ne ko tey nga fay sa kafaar ak koor gi wala sa alamaanu ngiñ li mbaa tey nga fay addiyu borub asaka moom àttekat ba mën na koo foqar ci ci doole jëflanteeg moom lu metti ci moom illaa an yakuna ndare bu dafa nekk laxoo ñeel ko minal xoroob di ci ay xeeti marchandise maa loo xam ne yëf yi dana matale bi ca borom ba in xaala ndéem ay na mooy ndéem mat na xawluhu atam ma indaxoo fa moom wa biixa te jaayef ko tam nekk lu ñuy jaay rek la bëgg wax xalal mu fal la si ci ka ñuy sisir buñ nee nag soo yoree wur sa xaalis woo xam ne mat na nisaab asaka war ca waaye nag fekk nga amee ay bor yoo xam ne soo ko ci fayee jeexal mbaa lay des du mat nisaab ñu ne asaka wàcc na la lay tax asaka wàcc la kat ñaari sart la benn bi mooy amoo yeneen xeeti alal yoo xam ne asaka waru ja waaye bu fekkee ne am nga yeneen yoo xam ne asaka waru ja dañuy seet ba xam mën naa matale bor ba am déet su fekkoon ne ku jaayeen yooyee def ko ca bor ba bor ba mat kon asaka du la wàcc duñ la forcé ci da nga jaay yooyee def ca bor ba waaye dañ lay forcé ci asaka ji moom génne ko day fekk nag in xaala xawluhu mooy matériel boobee mbaa loolee nga xam ne asaka waru ca ba nga ko amee léegi mat at day mel ne kon da nga caa loru wut ndax ndegam noonu la yàgg fi yow ba am at nga moom ko te it muy loo xam ne su bari woon i bor ba indi ko sisir yoon dana ko jaay faye bor ya ndax xam nga yére ya muy sol te mënta ñàkk ak néeg ba mu dëkk te mënta ñàkk bu ko yoon doon sisir du tee mu bàyyee ko yére ya muy sol te mënta ñàkk ak fa mu dëkk te mënta ñàkk lu mel noonu nag du tee asaka wàcc ko ndax loolu mënta ñàkk waaye daal lépp lu mu am ci alal joo xam ne asaka waru ca te bu ko yoon doon sisir dana ko jaay faye bor ya te it ba mu ko amee ak léegi mat na at mu yore ko daañu seet loolu ba xam ku ko xayma def ko ci ay borom bor ya dana mat wala du mat buñ gisee ni daal loolee ku ko defoon ca bor ya bor ya mat ko lim yore ci xaalis kaas war na caa génne asaka duñ ko forcé nag ci jaaye lee def ci bor ya moo xam na muy def ak borom bor ya waaye daal na xam ne moom asaka wàccu ko ndax am na matériel mbaa leneen loo xam ne asaka waru ci loo xam ne loo xam ne mën na koo jëme ca bor ya loolu nag mat naa déglu bu baax ndax day mel ne commerçant yu mag yi li ñu ameel banque ci ay bor ak société yi bi yor ci xaalis kaas lu ko mën a fay waaye nag daañu faral di barile ay kër ak i oto ak i lal ak i télé ak xeetu matériel ak xeetu am-am yoo xam ne asaka wóoru ca te ku ko xayma woon def ko ca bor ya bor ya mat ku mel noonu nag faawu asaka war ko ne koo ci xam ne seet nga ne yow soo génnee la mën ñàkk ci yow ci loo sol ak loo dëkk la nga am lépp boo ko jaayoon def ko ca bor ya du tax bor ya mat kon asaka du ko war ci la mu yor ci xaalis cash bu fekkoon ne nag ku xayma la mu yore ci xeeti am am yoo xam ne asaka waru ca ku ko xayma woon dugal ko ca bor ba bëgg koo mottali ci xaalis cash bi mu yore bor ya dana mat ba ëpp kon dañuy seet am am yooyu nga xam ne asaka waru ca nu wëlëru wa toll seet nag li wér ci xaalis kaas ku ko jël mottalee ko am am yooyee dugal ca bor ba lay des na muy toll lay des bu fekkee dana mat nisaab asaka war ko bu fekkee du mat nisaab asaka du ko war mel ne yoroon na ci xaalisu CFA téeméeri junni ak ñaar fukk ci misaal amee itam nag bor bu toll noona waaye am na matériel boo xam ne suñ ko seetoon xaymaam dana war a mat juróom-ñaar fukki junni kon téeméer ak ñaar fukki junni ya mu yor juróom-ñaar fukki junni ya asaka waru ko ca waaye juróom fukkee moom war na caa génne asaka ndax mat na nisaab bul fàtte ne bi mujjee seet nisaab mi ngi toll woon ci deux cent trente-huit mille wal qiimatu xayma ja waqtal wujjoo bi nekk na ci waxtu warga bu ñu ne su amee ay bor yore xaalis kaas bala ko asaka wàcc dañuy seet matériel mbaa am am ya mu am te asaka waru je ñu xayma ko xayma moom day wute ci jamono ji ak ci jeneen kon day seet waxtu war a génne asaka rek lam yore ci xeeti moomeel yoo xam ne asaka waru ca su ko jaayoon tey lu muy toll ci xaalisu kaas ca lay xame ba xam asaka war na ko ci xaalisu kaas ba mu yore wala waru ko ca aw lexoo wala ñeel ko day nun bor mar ju wun ba di buñ yaakaar wala mu ajjalan ak doonte day bu ñu jëmale àpp la xayru mar juwin du caageenu budul bu ñu yaakaar wala aabiqun du caageenu jàmbuy aji daw wala rujiya ak doonte yaakaare fon na ko ba tey kat bu fekkee amel nañ ko bor boo xam ne am na yaakaar ne faaw dañ ko koy fay délai ba nag ñëwagut waaye am na ci yaakaar kon na seet ba xam bu ko dugaloon ci bari boppam yi nu muy def de sax bor boo xam ne moom amu ci yaakaar ndax ka ko ameel mënu koo fay mbaa mën na ko waaye dafa dëngati mënu ko yóbbu ci yoon moom du ko faale du ko seet ba tey jamono yi jaam xewee bu amoon ab jaamam bu daw doonte sax yaakaar na ne dañ ko jàpp andil ko ko it tax mu seetaale ko ba xam nu xaymaam toll waaye nag bor buñ ko ameel boo xam ne rafet na njort ne faaw mu jot ca délai ba ñëwagul rek na ko daal di seet ba xam bu ko defoon ca bor ba asaka dana ko war am déet fa la wuuxi ba donte mayee foon na addaynu bor ba la wëññeel ko aw maa wala loo xam ne yu juxalu def na ko def fii ca bor ba walam yaxul te ayut maanaam te jotut xawluhu atam ma fala zakata kon déet asaka di ko war su yoroon xaalis kaas boo xam ne asaka war na ca waaye nag amee na bor boo xam ne bu ko ca fayee day jeex su ko boroom bor ba ne woon may naa la bor ba wàcce naa la ko ñu ne kon du tax asaka war ko ca loolee ndax dañuy jàpp ne tey tey lañ ko ko may te lu ñu la may bala ca asaka war waxtu wa delsi ca déwén sa te fekk mu mat nisaab ba tey bu fekkoon ne ba mu yoree xaalis kaas boo xam ne asaka war na ca fekk na mu amee xeetu matériel boo xam ne asaka waru ca niki télé ba leneen waaye loolee ba mu ko amee léegi mëtagul at dañoo sartoon loolee nekk ak moom lu mat at kon ndegam alal yooyu mu am te asaka waru ca ba mu ko amee léegi mëtagul at ba tey kon xaalis kaas ba mu yore asaka du ko ca war wayu zakka def na asakaal maa dinul ay ni mbellum kee buñ ne mbell mooy miin maanaam la yàlla sàkk def ko ci barab ci suuf si ñu ko fay gas di ko génne di ko jariñoo moo xam day pétrole moo xam day wala phosphate wala ay xor lépp lu yàlla sàkk rek denc ko ci béréb ñu ko fay génne di ko jariñoo loola mbell la waaye nag wurus ak xaalis képp dañuy waral loo ci génne tamu mat nisaab asaka dal cey war duñ ko takk ci ba at ma dellu si waxukumuxoo atteem ba mutlaxan ak lu mën doon moom mbell ma moo xam day mbellum wurus ak xaalis wala pétrole wala përëm mbaa leneen lil imaam yi ñeel na ilimaan ba walaw bi ardi muayyanin ak doonte dañ koo fekk ci suufas ku ñu ràññeel ku ñu xama xam mbell moom ak mu mën di doon bu xasee feeñ ci barab buñ ko bàyyee nit ñi noonu rek mën nañ caa xëccoo ba reyante ca moo tax kon fu mën di feeñ doonte sax xam nañ ne suuf sam feeñee jiw moo ko moom ni ki góor a njaay moo ko moom du tax kookee moom suuf sa am ca benn sañ-sañ dañuy jël lépp rek bàyyee ko àttekat jullit ba mu seet nu mu koy doxale ba jullit ñi mën caa jariñu te kenn du ca loro illaa ardaf sulxi ndare suufus yéwénoonte fa lahum kon ñel na ñooñ yéwénoon tega balislaam di dox jullit ñi bu ñu yewinante woon ak i yéefar ci bàyyi leen ci seenu kéefar téwee lañu juboonteeg ñoom far nag seen suuf soosee xeetu mbell feeñ fa moo xam day wurus mbaa xaalis mbaa leneen kon ñoom ñoo cay am sañ-sañ waaye àttikat jullit ba du ca am sañ-sañ lu may nag ñu dem ba tuub dugg ci lislaam buñ duggee ci lislaam moom ba tey xeetu miin boobee mbaa nga ne xeetu mbell boobee daal di dellu ci atteb jullit ña nga jiite jullit ña daal di koy yore wayu damm def na tàpp maanaam def na boole